Thiendella Fall daal dinay lànkal ki nga xam ni moom moo di Ayib Daffé fichier de parrainage bu président Ousmane Sonko bi nga xam ni moom la doon récupérer ànd ko ak avocat yi nga xam ne ñoom mooy maître Ciré Clédor Ly ba tax na nag ki nga xam ne moom mooy maître Ciré Clédor Ly daal dinay wax ni moom daal dina def li nga xam ni moom mooy benn déclaration annoncé na ko à partir de de dix-huit heures ba tax na nag mu mel ni nag force restée à la loi lañ daan dégg ci ñi nga xamante ni si ñoom ñooy ay njiit yi fi nekk ba tax na nag bu ñu sukkandikoo ci loolee noonu ñu waxoon ba tax na décision de juge bi nga xam ne juge bi jëloon na ko ñoom nag respecté wuñ ca dara ba tax na jamono ji ñuy waxe ak yéen ki nga xam ne moom moo di ay Daffé mu ngi taxaw foofu nga xam ne moom mooy buntu DGE ba tax na nag euh, ki nga xam ni moom moo di Maître Clédor daal dina yëkkati ay kàddu bindi ko ci page Facebook am di xamle ni moom dina amal li nga xam ne moom mooy benn déclaration à partir de 18 ñoom avocat yu président Ousmane Sonko ki nga xam moo di Ayib Daffé moom yëkkati woon na ay kàddu rek di xam ne ni dina xaarandi ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay avocat ak président Ousmane Sonko su demee ba nga xamante ni jaar na wax rek dina wax waaye mu mel ni nag tey jii 17h bi mu jotee 14h bi mu jotee jëm di jàpp di di h la daal di yëkkati ay kàddoom euh, ay tànkam daal di ànd ak ki nga xam ne maître Clédor Ly jëm fële nga xamante ni moom mooy sa DGE waaye mu mel ni ay ki nga xam ni moom moo di Thiendella moom moo di euh, euh, fichier de parrainage bu président Ousmane sonke boobee ngir mu mën cee jot mu mel ni nag euh, li nga xam ni moom mooy le juge bi def rek ba tax na ki nga xam ni moom moo di euh, Thiendella Fall dafa taxaw lankal ko parti bi nga xamante ni moom mooy parti bu Pastef Maître Ciré Clédor Ly nag annoncé na li nga xam ni moom mooy benn déclaration di ñuy ndéggal tuuti ba xam ana déclaration boobu noonu ñuy waaj a amal ana yan kàddu lañ cey waaj a yëkkati mbokk yi jaa ngeen jëf